bi bég ci lool macha allah ak borom weex bii nga xam ne tey daa mel ne rek eh, tubar fakalla tubar fakalla eh, eh, xale gin gin gin gi neew gi Ousmane a ah, xaritu Adja Mari Diop <laughs> ñi ngi leen di nuyu baax di nuyu soppee nga xam macha allah ñi ngi teewlu émission bi tey nag ki fi nekk ci caméra yi ci xool bi mooy sëñ cuun ñu xool macha allah ndax efficace na wala xamuñu moom ku fi efficace rek ñu wax ko. Mm, doom baay efficace na efficace na <laughs> de <laughs> efficace na mais mais mais doom na de. Euh, jërëjëf euh, Fall. namoon naa la trop nag na doon course nga xool kuy raw. muy course de. waaw muy course nga xam ne maa raw na mel. <laughs> di la a bu baax di la jox sa wàccuwaay wax namoon naa la lool. bilaay ñoo leen raw Fall. di la ñaanal yàlla yàlla musal la si cat. amiin boole laag sa borom kër. amiin euh, Fall di nuyu tamit bu baax a baax ambassadeur gin ginnaaw gi. Eh, di Pa Ousmane Gueye di ko ñaanal yàlla dolli suturaam dolli ko bu baax a baax a baax defal ko wér eh, di nuyu réew mi di nuyu tamit bitim réew eh, di nuyu tamit sama soppe ba suñu xarit ba El Hadj Mor Gueye sopp na bi suñu soppe suñu maa ngi woon maa ngi woon ci événement ba mais lu yëgaloo ma doom ba erreur boobu kay def naa ko mere naa leen ah. man kay xam naa lool mere leen mënoon ngeen ma ko yëgal man sama soppe boobu démb El Hadj Mor Gueye dafa dajale mille logements mm-hmm. sociaux mm-hmm. tabax ko di ko mm. jox doomu aadama yi te noo ko amee nga koy fayee looy wax ni wallaay lam fa dajale ci ay kilifa diine néew na kilifa diine bu ko mënta dajale lam fa dajale ci mbooloo néew na doomu cees bu ko dajale ci mbooloo cees cees la waaw Alioune Badara Gueye dégg ko fa. di Alioune Badara ñaar ñoom ñaar ko ànd sax ci liggéey ba. sama doom lu jaay lay denc. jërëjëf moo sama jabar Awa moo tax wax day am seede. wallaay wax day am seede. wallaay wax day am seede. wallaay ñun ñëpp wallaay ñun ñëpp waaye waaye waaye teewal naa fa. teewal naa leen fa di ko ñaanal yàlla projet boobu yegg. allahumma euh, jàppale ko de mu Serigne Khadim Lo Gaydel moo tëj. Mm, mm. la nga xam ne moo doon ñaan nga. macha boo lamb ci kilifa diine ak nu mu sant moo nga foon wallaay dëgg la ñaareel ba mooy lu tàmbali 9h ña toog ba 14h nit ko bëggoon a fay borom. ci li mu doon def bu baax dëgg la yal na ko yàlla fay. amiin El Hadj Mor yal na yàlla musal la si. amiin Fall da ciy mucc. ndax mhm. alquran moo ko wax. amma ma yanfau nas fa yanfasu fil ard nee na nee ñi nga xam ne dañuy jariñ doomu aadama yi nee na yàlla da leen di bàyyi ci kaw suuf macha allah. Mm-hmm. kon moom it daf cee book xam nga réew mi fi mu toll. waas lu mu seere doom ba weer ak weer ba yu mm-hmm. bëri mun ñoo am yaram munu ñoo dal munu ñoo xappi parce que luwaas moo leen sonal mais ki nga xam ne mooy libeera góor yooyu Ousmane mm-hmm. mooy ki nga xam ne moo def lu mel noon jox la ni la dëkkal noo mën a faye fayal defe naa ni ñu mel ni askan wi dalee na dalee na dalee na soxla te it lu baax li ñuy def ñëpp dañ koo dañ koo war a wax Ousmane mm. waaw yàlla na ko gën mën allahumma amin dem ci guddi gi lañ ma ko wax fekk na suñu waa kër ñu bëri demoon nañ fa booloo ma saar ak ñoom ñëpp macha allah ndax Alioune Badar Gueye moom mu ci àndal mm-hmm. mooy denc awa seex sama doomu nijaay Alioune Badara Gueye nekk ku baax macha allah. Mhm. Mor Gueye tam nekk ku baax. ñoo bokk seenu Gueye macha allah ku sant Gueye day baax. yaa dégg man tamit ma sant Gueye baax lool. Ousmane Gueye <laughs> Bougane Gueye tamit baax lool. macha allah jaar faale nii nga xam ne ñoo may soxna. ñu baax ñoom tamit macha allah. Mhm. borom Kajoor. waaw borom Thiès. borom Thiénaba. Mhm. borom kii euh, dëkk ba Ndiassane. <laughs> Ndiassane. ziar ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di ziar Serigne Makhtar Sarr foofu ci Guinguinéo. borom Zéo FM. chaque année day def tafsir di ko tëj lendemain Korité li koy tëj na mu ko doon defee rek macha allah di ci invité ñëpp rek waaw tuddee ko alaaj góor a seen mi nga xam ne wax dëgg yàlla taalib sëñ Modou Moustapha Modou Moustapha Gaynde Fatma Mbacke soxna loo borom kër gi dëgg yàlla mbir ma am na solo trop waaye alaaji mbay kenn du moom ca parrain la bokk di ziar ñëpp waaye moomi sekk duñ sa sa sa na egsi na yàlla yàggale fi loolu te wéral la egsi fayam kus fii fayam kus taxawal fayam kus fayam kus fayam kus da ngay lekk kus kus ba pare yàgg fi <laughs> lekk kus kus ba pare yàgg fi wala ay dëgg la maman yi pour naas fayam kus fil ardi macha allah soxna Ndémi Seck yal na yàlla guddal fanam yàgg fi loolu tëwér ko waaye sañoon kenn du rafle waaw macha allah waaw sañoon kenn du rafle mais dakaa doon nag ku namp mais boggal lay téer am na foppoo jaaga waaw kuy sa baay coon Seck kuy sa yaay euh, tina jaaga kuy sa rakk waali Seck dëgg yàlla doy na sëkk waaye kuy sa borom kër Bougane Gueye Dany ba sant ba dafa neexul mais Gueye la ca teg <laughs> santoon Seck rek du neex mais Seck ñett ngi nii moo tax mu neex uh-huh. Uh-huh. ñu dem ci reportage bi uh-huh. euh, euh, ñett waaw ku la may oto bëggul nga tardé ku la jox yére bëggul nga rafle ku la may xaalis bëggul nga fande ku la tuddee bëggul nga réer ci àdduna <laughs> macha allah góor eh, yi a ñooy karalaate eh, nag. Umpaañ Ndeye Dia laa jeexale. Umpaañ Ndeye Dia maa ngi koy nuyu. Umpaañ Ndeye Dia mu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi koy nuyu bu baax bu ndogu jotee waa Daara yëpp koy wër macha Daara ji rek seen bëgg-bëgg. Mhm. ñu naan ko diwal ma nangam ñu naan ko diwal a nangam mu gérer lépp. ndey ju seex borom ndey ju Daara noonu la mën a mel. dëgg la ko ziar bu baax a baax a baax Sénégal mhm. bu ñu gërëm ku xam bu bàyyi ki taxani ji. dëgg la Sénégal nañuy gërëm ki xam ak ki taxane yëpp ñu ngi ziar ñëpp. macha allah tey nag xam nga li ma sol ni weex bi rafet na de. doom bàyyi lool lool lool lool lool macha allah jaar mooy sama caatum yaay Roqeya sama rakk jooju macha allah nekk fii ci West Foire tijji na boutique ba yéen a ko doon xaar ñëw na faa boutique dem leen ngeen euh, seeti Roqeya ci 77 540 54 51 macha allah gis nga ko ni 77 540 54 51 mooy numéro chat dinaa ci ñëwaat incha allah gën ko yaatal seeti leen ko ma ngay def yu doy waar macha allah maa ngi koy nuyu baax faal di ko ñaanal mu mel ni Inde su nekkee reportage bi jàppandi na nga tegal ñu ko bu ñëwee waxtaanee ko euh, macha allah. Euh, soxna si maa ngi lay ziar bu baax. maa lay delloo euh, man dama am benn problème. problème bi daf maa jaaxal lool. sama ay ati at du benn at du ñaari at du ñetti at. fukki ñeenti at ay ati at fukki at ak juróom-ñaar ren ñoo ngi koy dund suñ biir famille dafa am suñu benn mbokk boo xamante ne daa yor kër yor njaboot am na juróom benn fukki at juróom benn fukki at am na ay doom ba am na ay sët góor da am ay dëkkandoom yoo xam ne dañ ko tuumal moom bañ naq ba du gis benn bol la yor daa ñu ne daa am ku ñu boom ñu dem laaj xaalis lu toll ne fanweeri junni daan waaw mhm. ci benn dëkk. léegi nag ñu dem ñooñu ay dëkk ndaam laay ci xaalis wax ñooñu bokk ki ñu rey boo ñu joxee fanweeri junni dinañoo la seetal ki rey eh, seen papa. Mhm. ngay dégg léegi nag ñooñu dindi fanweeri junni jox ñooñu ñu dem ñu jël ñu teg ko ci dër kooku. ñooñu dañuy woote ab ah. ñooñu euh, sëriñ lañu wala lan lañu doon. ay sëriñ duñu ay dara ay indicateur lañu. ah ay indicateur lañu. waaw ok ay indicateur mhm. léegi nax ñooñu jox leen fanweeri junni ñu jël paa boobu te paa boobu benn bot la benn benn bot la yor du gis. Mhm. ndax am na juróom fi may waxee yow nii am na juróom benn fukki at. Mhm. am na ko. yor na ay doom yor ay sët yor lépp njabootam père de famille la. léegi ñu teg ko ci ndoddam ba demee. ñu xëy xëy xëy xëy police ñëw jël si ko. léegi indicateurs yi ñoom ñoo dem ni famille bee. waaw diw moo rey seen papa. diw moo rey seen papa bu ngeen ñu joxee fanweeri junni dinañu la seetal kan moo seen papa. léegi ñu jox leen fanweeri junni. waaw ñoo ñu jox leen fanweeri junni. ñoom ñu dem seet ni diw la. waaw ñu dem seet ñu ne diw la. te diw boobu nag père de famille la. daa yor ay doom. ndax moo ko rey. rey ko comme indi loon ci weeru koo la ñu ne. dama ànd ak sama njab dina waat ci yàlla ne mosul sax rey ganaar bee rey doomu aadama ana waaja ki ñu tuumaal mu ngi ci prison bi ñaata fukki at ak juróom-ñaar ren te moom yéen wóor nañ leen ni ah, ngeen baal ma xam pël yi dañuy wax ni souvent yéen maanaam dañ koo gor wala nangam nangam moom dafa mos a rey nit wala moo ki dee dañoo mos a xuloo wala dañoo bokk tool wala dañoo bokk nag xamul sax kooku fu mu dëkk xamul sax wallaay ne azim xamuñu sax fu mu dëkk ñooñu bu ñu bu ñu leen taxawalee tër tribunal dama ne carrément ne xamuñu ko. waa waaw waaw waaw mbokk ki ñëw rey. am na benn doomam bu jigéen bu ñëw mu ne kii reyul suñu bàbb te ñoom dañoo am benn affaire bu leen jaaxal te dañoo réeree mbir. te dañoo juum. ndax la ñu waroon def defuñu. dañoo waroon xool bi ñu xam moo leen reyal ba pare soo jël seen xaalis ñu joxe ko waaye tooñ nañ koo xamante ne deful waxul te comme indiloon tey xaamil alquran te jàppalaa nekk ci weeru koor. waa ji boo leen waxtaanee ak moom ci wàllu rey bi. kan. Eh, ki ñu tuumaal. waaw ndax dina am eh, eh, conscience tranquille wane ni moom reyul. kola moom. bay joone yàlla te ji reyul reylawul musul rey xamul na ñuy reyee. ani indicateurs yi. indicateurs yaa ngi ci dëkk yii di taxawaalu. boo gisee wax ni damaa bëgg ëllëg nit ñi yeewu. yaa ngi dégg pour ëllëg bu la dara dalee. nga bañ a jël sa alal nga boole ñàkk ak am ak ndax ñoom dañoo boole ñaar dañoo ñaq ba pare. ak euh, doomu aadama tegu ba ci seen ndodd. Euh, kooku am na xale bu góor bi am na am na jabar ki doom. dégg li ma la wax am na juróom benn fukki at. am na ay jabar am na jabar am na ay doom am na set doomam bu jigéen. am na ay doom ba ay doomam am nañu ay doom dañ ko yàqal adunaam. keroog am na yoo xam ni ci kaso bi la bi mu li ma la wax. ci biir kaso bi. am na doomam boo xamante ne ba muy dem jabaram daa ëmb. ba am ñetti weer. tey doom jaa nga nee tey. am na ren fukki at ak juróom-ñaar. am na fukki at ak juróom-ñaar mu ngi foofu. ay njabootam yëpp tasaaroo na yaayam ma nga feebar di jooy guddi di jooy bëccëg. jërëjëf ñu ngi bu baax a yàlla yàlla fay la gis na liggéey <laughs> kenn du moom mais doom bàyyi ñu bàyyi la nga euh, régimel li nga xam ne mooy euh, li fi dafa mel ni maa ngi ciy dégg li nga xam ne mooy tuuma jërëjëf euh, yaa Seyda mhm. soxna sol xam ni la day wax ak jëkkëram day waxal mbokkam day waxal deretam mu jàpp ni la waaja ku góor ko dëkk ca kaso ba dañ koo tuumaal mhm. ndax benn waay lañu faat ci wàllum sàccum jur mm-hmm. ay indicateur ñëw ca ñaañi mbokki ki ñi faat mm-hmm. ni leen boo leen ñu joxee fanweeri junni dinañ leen wax kan moo rey seen baay ñu jël fanweeri junni jox leen ñu ñëw ni leen di wa rey seen baay moom nag wax na ni ki rey seen baay bët yi neexul wax na ni jamono jooju sax génnul doon nag maanaam layal na ko ba jàpp ni ñoom dañ koo tuumal ba bisub àtte bi sax ñi nga xam ne ni la ñu rey seen baay ñoom ba ñu tax ba ñu àttee ba pare wax nañu ay la yéwén kii moom du moo rey suñu du moo rey suñu baay mhm. kon mu mel ni tuuma am na ci mu mel ni tamit sos am na ci mhm. mu mel ni tamit wax baatu ginnaaw am na ci mhm. te parfois yaa sayda nga tuumaal gor goo xam ne du xam nu muy setalee boppam dëgg la macha allah mu mel ni lu am solo mën naa ci am ay tuuti laaj nga xam ñoom benn dëkk lañ dëkkoon am déet euh, dëkk yi bokkul kii bokkul parce que tëj nañ ko fukki at ak juróom-ñaar lañ ko tëj benn at a ko dese benn mi ngi tëdd ba léegi mu ngi tëj doomam faatu na ci ginnaawam na ko ba jamono ji yaayam moo ngi ci ci blal tëdd mm-hmm. eh, nga xam ni kon metti na nee na bi nga bis bi nga xamee ni doom ji faatu na mu dem ni ko eh, diw faatu na mm. dañu ko ñii atte nañ ma fii waaye dinañ ma attewaat yowmal xiyaam ñii atte nañ ma fii mais dinañ ma mu mel ni lu doy waar la mu mel ni béréb yooyu am na ñoo xam ñu nga fa tëdd nekk fa ay yonti yàlla Yuusuf fa set wecc nga xam ne tubar fakal defuñu dara dara dara dara tëdd fa ay ati at mu mel ni luñ ma atte nañ ma mais dinañ ma attewaat Ousmane mu nekk lu doy waar mm, mm, mm. waaw ëpp tool mm-hmm. bu yemoon ci waar rek mm-hmm. mu baax mais ëpp na tool dëgg la mais mën naa am tamit loolu moo gën ci moom moom mi tëdd tëdd fukki at ak mën naa looloo gën ci moom ndax Seyda kaso mm-hmm. bàmmeel lay wuutu. bàmmeel. ku war a dem bàmmeel mu échec. waaw foo jaa dem kaso. Ah. waaw boo waree dee deewu gaaw mu échec. waaw da koy remplacer kaso. Uh-huh. waa waaye tamit ñiy tuumalaate nañ uh-huh. xool bu baax li ñuy wax. Uh-huh. ñuy wax ñuy wax nañ xam bu baax lu ñuy wax. dañoo rey sa baay mën naa laa kaa wax dama lay jox ma fanweeri junni ma wax la ko. waaw yooyu mi laaj fanweeri junni yaa ko rey yow la ñu war a dem tëj ji. <laughs> jox ma fanweeri junni ma wax la ko rey sa baay. waaw mais la tëj yow. waaw foo xamee foo xamee ki rey góor gi am na ñoo xam ne boo ci waree témoin rek. Mhm. yow yaa def mbir ma. wala laala nga ci wala ki nga def xam nga bu baax ndax am na ko xam nit sax warul am ci du ko wax. dëgg la warul am ci du ko wax. noo xamee ne moo ko rey noo xamee ne ku ko rey. c'est ça noo ko xamee foo ko fekkee. waaw mhm. am yoo boo ko boo ko nangoo fekkee rek. waaw tax nga ca. dëgg la tax nga ca jox ma fanweeri junni wax leen kere pap seen papa. Mhm. dafa bëri ci réew mi xam nga ki la jox ma ñu fàcc sa sa fasu trois cent mille. nga ne jox ma cent cinquante mille ma génnee fas wi mook sàcc bi sorewuñu déedéet ñu ndey sàcc ñu def noonu la ñu def wala rësal maa wala ki xam ko téyee moom système euh, mu génnee fas wi nekk dëgg la waaw wala mu génnee ki ray waa ji wala moom sax du tax te kenn ko jox trois cent mille kon bu mhm. yàggee gars mhm. leer bu baax a baax a baax waaye mën na am tamit looloo gën ci moom ndax yenn saa yi dara dafa war a ñëw ci yow yàlla macha allah fanq euh, fanq ko fanq ko fanq fanq ko loolu looloon kaso ba nañu tumaal ba dugaleen am na benn histoire bu yéeme côté Mbàkke gii la nekk jàngalekat bi bi ñu ko tëjee ay ay ay weer bi ñu ko àtte dañu ko dafa viola xale bi xale bu jigéen bi xale bu ndaw bi bi ñu demee ba koy viola euh, di ko àtte mm-hmm. fekk na xale bi yaayam moom moom tam moom couple bi ñu ne ko lu mu la def def ne dafa laal sama kanam dafa laal sama kanam ñu foog na kanam gi ci suuf la laal yooyu ñu ne ko laalee sa kanam xale bi nag def na ma nii nii. laa ilaaha illallah. def na ma nii nii daal laal sama sama kanam fekk na yaay ji moom munti coup bi ba tëj lu prof bi. ah ay weer yu bëri bi ñu xamee ba xam ne lii montage la. Uh-huh. mais dañoo génnee waa ji ñu ne xale bu góor bi ndax da euh, ngay da ngay da ngay topp ndaw si la ko tuuma mu ne ko noo jéggal naa ko. di gën a xam naa natt bu warul la ñëw ci man la rek nattoo di kerkeraan awliyaa yi uh-huh. waaye tamit wax dëgg yàlla tuumaal yi bëri na ci kaso yi loolu uh-huh. sayda waaye wax loo xam ne leeru leen uh-huh. bëri na nag ci réew mi wax loo xam ne leeru la da ngay ubbi télé sax bari ma maa ngi ubbi benn télé dégg ku naan non tay tay démb tey da lay du xadda tiijaan yi xam na tey la lay xaddu murid yi xam naa lay du xadda yi xam naa bés bés bari ñëw la te lay du xaddu te tijaan amul wala am na murid yoo xam ne nii le 27 bii di ñëw ñaar fan juróom-ñaar ci laytu xadri mm-hmm. dañ koy màggal ko ñëpp mm-hmm. dañoo xamul fu mu nekk duñ mm-hmm. xamul fu mu nekk na ñu koy wër nag kon xëy dañ koy wër da ngay jàpp ko bés boo yeewoo rek nekk ca xam nga ñi yi mm-hmm. ndax am na sax ñu ne nekkul ca ko ko wëree da nga ko gis dëgg la waaye bu la ñu wax na leer leer macha <laughs> mm-hmm. allah mu mel ni MD téléphone bi dafa mel ni mm-hmm. euh, jàppandi na mën ngeen koo tijjil ñoom tam ñu daal di dugg wax euh, ku nekk xëy na li nga li nga li nga xam ne mën nga mës nga koo dund ci li nga xam ne mooy mooy li ñuy waxtaane di ji di tuuma yaakaar naa ne ñi ci mucc bariwul mucc bariwul dëgg dëgg wax dëgg yàlla moo tax yàlla yàlla ni yonent bi defal mm-hmm. attention ci ñi nga xam dañu tuumaal gorñe mm-hmm. njaga ni ko in jaakum mm-hmm. fasiqun bi naba'in fatabayyanu saa bu information ñëwee ci yow na nga ko vérifier kon yaakaar naa ni thème bi ñu tem laal na kilifa diine yi laal na ñi nga xam ne ñooy chef de société yi laal na ñi nga xam ne ñooy borom kër yi laal na ñi nga xam ne ñooy yaay ak képp koo xam rek dangaa jiite mbooloo war ngaa bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy tuumakat yi am na ci ñoo xam dañuy ñëw tuuma pour jege la rek am na ñoo xam dañuy ñëw tuumaal njaga wala ñu tuumaal Ousmane rek rek aussi am na ay taalibe yi nekk ci sawet am na ñoo xam ne li arab naan al aqrabu awla gën a jege gën a yay am ñoo xam ne dañuy ñëw di la jox ay information rien pour pour pour jege la moytul Ousmane de Ousmane mi ngi def nangam de am na ci ñoo xam dañuy dem sax bay dëddale sëriñ bi ak taalibeem yooyu yëpp gën nañ ko fi macha allah kon képp koo xam ne yaa ngi jiite mbooloo rek na nga bàyyi yu mel ni Ousmane mais doomu bàyyi rawatina kër yi kër yi maam si di MD mën ngaa tijji téléphone yi mi ngi noonu mm-hmm. bu ko defee ku ñëw rek ñu daal di ci ànd ak ñoom waa Gambie nag ñoom duñu leen fàtte ak seen TV l'officiel ñi ngi leen di gis ci njiitu Adja Ndeye Touré bu Madinatul Munawara doomu bàyyi mu mel ni euh, lu lu lu doy waar wax nga sànq ni mm-hmm. xam dama koy tënk rek ci olof ñu fa yaa def mm-hmm. fa yaa def yegg fa defuma yegg fa yaa ngi romb ci ko ñu lay xoole benn affaire boo xam ne yëgootinoo doomu baay jërëjëf yaa Seyda yaa Seyda est-ce que xam nga ne gor yu bari tuumaal nañ leen te yëguñu ko yëguñu ko mm-hmm. yaa ngi jaagar jaagari ci koñ bi di tiitaru sa koñ bi mm-hmm. di solu koo romb ree ko te boo ko wanee ginnaaw ñu waxtaane la wokkante ngir lañ la déggal ngir lañ la déggal lañ la déggal te te du dëgg mm-hmm. xanaa xamoon it tuuma mhm. bu doon fukk juróom-ñeent yëpp du dëgg te bu ñu ñëwaatee yaa ma gën a dégg wolof ci waxi waxi wolof mhm. duñ la tuumaa la kon du dëgg tuuma la mhm. tuuma la moo tax moo tax moo tax mag ñi ne alalu gor la alalu gor la gor rek li ñuy tuumaal xool ku ñu mës a tuumaal ci suñu yaay Aïcha oh. ba ci jëmmi jamono ji as gor la ñuy tuumaal yonent yàlla Yuusuf wallahi wallahi wallahi tuumaal ko kaso ah. comme li ngeen doon wax lii wallahi Mm-hmm. as gor la ñuy tuumaal waaye li gën a metti mooy tuuma gi nga yëg mën nga koo lijjanti. gi nga yëg. waaye tuuma gi gën a metti mooy tuuma gi nga xam ni yëgoo ko te mën na am nga demaaleeg moom bàmmeel. allahu akbar boo ko demaa demaaleeg bàmmeel kan moo lay weddil. Mm-hmm. xam nga nu muy demee des koy donn tuuma ga si boobaa. Oh. Mm-hmm. nan lañ koy donnee mooy sa doom ji nga fi bàyyi. Mm. moom la ñuy yeggalee tuuma gi di ko waxtaanee naan yaayu diw wala yu diw. moo tax tuuma gi nga xam ne euh, yëg nga ko ci sa dund man nga koo weddi mais bi nga deewaale moom ilaa yawmil xiyaamati kenn du la ko mën a weddil mhm. su boobaa nag say doomay donn tuuma yi mu gën a metteeti te mën na am mhm. xanaa xamoo ni fenkat mhm. daa bokk ci ñi yàlla barkeel làmminam fenkat dafa bokk ci làmmin yi nga xam ne yàlla da koo barkeel <laughs> ndax xam nga lu tax ma ni fenkat làmmin ba dafa barkeel xoolal nitu waxkat lu mu wax balaa jant bee soo mu siiw. dëgg la dëgg la. xoolal soskat dañuy am jot doom dañuy parce que dañuy am jot. mooy ku amu jot ku am ko am jot. <laughs> dañuy am jot am crédit. te pas Ousmane. kër yi ñuy tuumaal yëpp. que ñu tuumaal du wax kat. du wax kat du jëf kat. du jëf kat. au contraire moom mooy moo jëf yu baax ya. xoolal. Mm-hmm. kilifa yi ñuy tuumaal. Mm. muy kilifa yi def lu baax. dëgg parce que saay-saay yi la war a tuumaal ah. du ñu tuumaal ab saay-saay as gor la ñuy tuumaal moo tax yow kilifa gu baax ngi ngay kilifa diine baa politique wala kilifa gu mu mën a doon buñ la tuumaalee rek hmm. jàppal ni ku baax nga waaye hmm. yàlla na la yàlla may ku hmm. baax ku nekk sa wet mën la koo dindil wala yow bala ngaa dee xam tuuma bi dañ wax lu rëy nag wallaahi wallaahi wallaahi bala ngaa dee parce que li nga wax moom sa lok ñi koy doon ñi koy doon te nag doon la gën a métti xam nga loolu donn bi eh. mm, mm, moo gën a dem ba war a donn dara ñu ne la doo ko fi doon nee ndax kat déggala nañu sa baay nàngam mm-hmm. te munoo weddi te munoo weddi doy mu mel ni fi nga nekk dafa am solo mm-hmm. Ousmane mm-hmm. te munoo weddi looloo daloon yonent yàlla Muhammad ak sayyidatuna Aïcha mi nga xam daf ko bëggoon lool nag parfois ñiy tuuma dañ koy teg sax ci kiiñaan ak soxor xam nga ay défaillant moo ah, dafa ñoo xam ne ay défaillant la ñu doon bàyyi ku mel ne Serigne Modou Gueye so soppe na bi mhm. li mu def ni li ku naan li kii olof naan nañ ma jéggal baal ma ko ne xam nga kaman sa baay da nga ko dul nangu na naaj bi tàng xool na naaj bi tàng gis nga li muy def nii am na koo xam mënu ko xam nga lu muy def mhm. ci ruq ba lay toog moo mhm. mm. xam nga ne li mu def nii moo fu koy jëlee ah, mooy kii ay mbiram leeru moo eh, kii ko am na ci ñoo xam dina jar dina leen jaral baay Ousmane ñu woote ci béréb ni diw bàyyi leen ko xel ndaxte <laughs> naa nga man gis naa ko xam ay étage taxaw mhm. ay étage liggéey liggéey commerçant liggéey ba taxaw ay ay immeuble am Ousmane mhm. mais ba immeuble ya taxaw amatul ci am mhm. dañ ko boole ñu di ko topp mel ni comme ce kii waa ji lu bol lay jaay Ousmane ci réew mi tuumaal ko tuuma goo xam ne li njëkk di wax yëgul si nu <laughs> Mor Gueye la bu <laughs> bëgg ko daane ndax iñaan Mor Gueye na bi xaaral ma jël kii allo allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam soxna si naka def. maa ngi ci alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm. macha allah. tur bi nan la. Ramatulaay. Ramatulaay. soxna Rama maa ngi lay ziar yaa ngi ci jàmm. nangu ziar. ah bisimilah maa ngi lay dégg. bon en fait dama doon bëgg woo ñoom Seyda fii. Seyda ban. mooy seen waxtaan bi ngeen def nii. waa ñu ngi lay ñu la ñuy déglu. soxna Rama. ma ah, macha allah. Ah. waa ñu ngi lay déglu. maa ngi lay nuyu kontaan si émission bi. jërëjëf jërëjëf sax Mouhamed waaw. di di wax ni loolu du fii rek la am. Mhm. yàgg na ci jaam nagam yonent bi sax defal nañ ko. ay salaatu wasalaam dëgg la. kon ñun alhamdulilah dañu war a delloo suñu xel si yàlla parce que bari na ñoo xam ne. Mhm. ñu ngi ci loolu di ko dund te métti trop. dëgg la. waaw ndax ñun man man dama pas personnel lu mel noonu. dund nga tuuma nekk naa xale sama papa dundul yaay man ko salaam ci doom. mooy façon tuuma bu nekk dégg naa ci àdduna yàlla nag mooy def nga nekk xale. xëy na peut-être teel bëgg yàlla. mu tàggat la may la loo xam ne may ko kenn kenn mënu ci dara. may nit yi dañuy différence bi ñuy am ak ak nit mooy nit jàpp na ni moromu nitam am dara. waaw waaw waaw. dañ lay am nga dara ñu ne daf ko dem wutee fii. yaakatu yàmbaa la yàlla rek moo lay dimbali. wala góor jigéen la wala faramason la. bu <laughs> fekkee borom alal yàlla def ci jàmm. amiin yàlla mën na ko dimbali yàlla dimbali la ko. amiin soxna Rama. ba ba keroog di di yàlla di ñu defal da jàmm ñun ñëpp. allahumma amiin di nekk ci bi di ziar ñëpp. jërëjëf. di ñaan yàlla wàcce ci xéwal bu bari ak yërmandem amiin amiin amiin amiin soxna Rama barki yent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam yàlla màggal plateau bi mu doon plateau yi gën a màgg ci plateau yi amiin amiin soxna Rama incha allahu rabbi merci beaucoup jërëjëf kontaan nañ ci yow bu baax macha allah soxna Rama ñu ngi nuyu ñoom sa Fatou Tunkara ñoom tam ñu mhm. ngi ci ci ci Facebook l'officiel ñoom Fatou Bodian ñoom mhm. soxna Ami ñoom ñëpp soxna Seyda Ndeyawa ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ci contribution yi xam ñoom it ñu ngi koy def ñu jël ñi nga xam ñoo nekk ci 88 628 89 90 ñu bës 2 allo allo salaamaaleykum alo wàññi télé bi mhm. dañ koy wax fu ñu toll kañ ngeen wàññi télé yi dugg bi yombul kon ku dugg rek soo bëggee waxtaan wi neex da nga wàññi sa tele dégloo ci sa téléphone dinañ la dégg ci 88 628 89 90 ngeen bés 2 wala 00 221 33 841 20 69 ñu nekk bitim réew waa Paris ñu ngi leen di nuyu suñu soppe yi ñu ngi jox ay yóbbante yu bari waa Paris walaay walaay yu baax la doom bàyyi da ngay pare rek. lii ma sol nii. Mhm. ki ma ko jox Italie nekk. waaw mbay mbay dañuy gàkku dee ko wax ñëpp di ko dégg doom bay ci la li nga wax sànq rek ndax man mii daara ji yenn saa yi ma génn ñu jox ma euh, euh, ndogu loo xam ne ca daara ja mm-hmm. fekk nit ki gisoo ko déggoo ko ci télé bi rek la lay seen Ousmane man la tere la mu mel ne yonent bi sax daanu woon na ci piège li nga xam ne mm-hmm. moom moo tuma dem bëgg dem ba gëm ko ci mm-hmm. Sayyidatuna Aïcha ba Aïcha génn kër gi en tant que yonent yàlla Muhammad la ndeysaan boo bëggee xam nit ki mooy xam kan rek xoolal turam turam yaa ngi koy wax ba tudd Mor Gueye moomu na bi ki mu sopp moo tax li mu mën a def fu mu jaar def ko. dëgg la waaw ki mu sopp moo tax. waaw ndax law naa sabat qadruhu. Hmm. ayatuhu isaman hmm. yasmu xiina yudhaa daari sa rimam mi. dëgg la sallallahu alayhi wa sallam. kañ suuloon avant Firawna. Hmm. boo taxoon ci baam ne ko jugal ci barke yonent bi. bu kéemtaan yi tolloon noonu rek. Uh-huh. parce que dayoom rek kon dafay jóg wax a yow tëddaat uh-huh. kon kéemtaanam sax bariwul waaye dayo Seydina Mohamed kenn dara dara darul dara toll ni moom kon kim sopp kim tuddee boppam uh-huh. moo yéeme dëgg la mais bugaan mi nga bagaan mi nga xam ne bagaan la tudd nag bagaan mooy bugaan ah, bagaan waaw mooy bugaan mooy bagaan boo benn bi yax bi la benn kii bii dafa nekk bu damm boo boo defee bagaan muy fata pour dafay wàll si ci nit pour dafa am solo ci nit waaw amoon na ku tuddewoon boppam kekk kek waaw yorutul dara mhm. waaw demee wax ko yonti bi yonti bi da kaa changé ko beeñ mbir mi di dox di dox ba caag mën a daal beeñ neexu ko kekk lay tuddaat daal kekk amatul dara <laughs> nil Pape Youssoufa Seck Pape Youssoufa Seck dañ koy ah, ziar moom olof yee koy la dañ koy ziar baax kon mm. ki lay dàqee te jotul lu mu yor sànni la ko mhm. te ki nekk sa ginnaaw moo mën a xam sa tànk yu dëng dëgg la sama benn jarbaat ku baax Mm-hmm. ku toog ci wetam ne ko yée man de di ma bañee waale daa soofu mm. mu ne la waali daf lay laajte nag da bëgg mm-hmm. oh. waaw da da lay laaj yu baax yu mel noonu da ngay mujj a soof moom moom dafa lay wan ne moom waali xamu la waaw xamu la dëgg la boo toogee naan naan naan naan naan diw diw diw mii Youssou Ndour mi nu mu soofee mu ne moom dafa lay laajte sax waaw lay laajte waaw mu ngi wane moom xamu la yow yaa ko yow yaa ko xam kon nga de war a def nang bu baax yow Zeynab Zeynab Zeynab Zeynab boo ko mosaan woo téléphone mm-hmm. bëgg a jëw nit boo ko nee diw mu ne la ak a baax ak a baax waaw daf lay baax waaw waaw misaal ngay xas nit ki di ko wax di ko wax lu bon te boo hmm. sañoon mel ni moom ah ah boo sañoon mel ni moom ah, kon bu yoon saa ngay xas nit ki di ko saaga ah. buñ ne la waaji de bu weer dee nga mel ni moom nga yàkkamti weer jot la nga mel ni moom mel ni waaji nelaw dafa lay déranger hmm. ñu bëri ci nit ñi li lay déranger hmm. moo leen arranger uh-huh. am na ñoo xam ne li lay déranger uh-huh. mooy arranger njaga te liy déranger njaga yow hmm. yow moo lay arranger <laughs> ku xool fi mu ko war a teg mu teg ko fa uh-huh. léegi soos gi dafa bëri ci réew mi soos gi wa nit ñi xiif sos bi bëree ci réew mi soos bay sos bi nit ñi lekk ci sos bi moo bëri dañu sos rek te xamuñu ñuy sos lan la wax loo xamu rek di xëy di wax rek waa dugg na oto njaga mhm. waa ji xonk cooy dugg xamu ko de mhm. mu koy jëlu de mu koy wax ku bon la ku nangam la ñi ñoo yàq dëkk bi mhm. ne mooy teg ci deram bi kii barki dem ñëw na suñ koñ mooy tubaab bi mooy sinois yi lu ne mu koy wax waa ji di ko xas ñu ko noppil ci waa ji muy wax rek mm. mais gis nga waa ji bi ñu rombee Fass Mbao Fass Mbao gii bay wuti kër Mbay Fall waa ji waa waa ji doon tew ku xonq gi dafa am ku tissooli ci oto bi waa ji ne ko wutal rata ngeer <laughs> ku xonq gi moo ne ki tissooli wutal rata ngeer waaw waaw wutal rata ngeen ko wax kee moom dafa jàpp loxoom moom ne ko bu ñu àggee kër Mbaye Fall mayam mu wàcc rata ko ndax ki mu na wax rek ñuy jëf jëf waaw wutal tontu de <laughs> mais ah. gars boo leen di tontu <laughs> hmm. wala ngay wax ci ñoom bu yàggee yow doo dem duñ dem mënuñu hmm. ko dem hmm. dañoo am jot borom caq urus du xeex ak borom baatu neen sëriñ ba nee na def ko sànni xeer nga for delloo ko nee na bu yàggee bu dab waaw yéeg ci garab <laughs> nga sànni xeer nga wàcc daal koy wong yéegal mais doo gaaw yegg bàyyi leen wax rek yow ngay jëf li ngay jëf am na ñoo xam ne ñu liggéey hmm. am jot te am mécontent te macha allah fu ñu bëggoon yegg yegguñ fa <laughs> ñu ngi wax rek ñu ngi wax rek yow nag yow hmm. nangam jees neeram bi de rafet na lool mais mante bi fu ñu jaar ah. bi waaw mante bi kay baax ah, mante be mante be ma ci saf mante be la ci saf yow ndax da ngaa sot sot mante mante lay ah, dirigé faaw rek ñu ne waaye da nangam waaye nangam waaye nangam te waaye nangam wax dëgg yàlla nañ ko nañ koy bàyyi mooy ñi nga xam ne dañoo perte rek amuñu fenn macha allah amuñu ñëpp ko daan sóoraale sëriñ Fallou sëñ Fallou Mbacke euh, bàyyi mhm. sëñ Abdou Karim mhm. bàyyi sëriñ euh, Ahmed ma jël mhm. Euh, ñu jël ko allo salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum maa ngi lay maa ngi lay dégg de sàllaaw <laughs> waaw télé ba la ñuy déglu télé ba ñuy déglu mu mel ne ñu ngi ci ligne bi da ngeen di déglu seen téléphone su ngeen dégloo seen téléphone rek di ngeen di ngeen di ngeen ñu dégg ñu ne dinañ leen dégg mën ngeen ñëw ñu daal leen jël maam euh, man maam Sidi lu mekk sama laam bi tey ji <laughs> maam Sidi xaw ma jàpp tey xam naa koor ge la te <laughs> moo ngay nelaw nag ma ngay nelaw de <laughs> koor ge ma teel jàpp nag tey de mais démb est-ce que dafa fi woon démb wala mu ko Sëriñ Fallou mu mel ni euh, daana ko wax naan xaat maanaam bu dee déparé ah. léegi na am na benn guy benn garab boo xam fa la daan taxaw xaar leen tuuti doog a yegg suñ ko ne sëñ mu tax na may xaar xaat yegg ma ma ma ma ma ma a kii jël ko dafa dem ay ca mën ngeen a ñëw bu ngeen rek dinañ leen jël doom bàyyi mu mel ne réew mi tam doy na waar. réew mi ban na tool la Pa ma wax. ban nab tool Ousmane la walaay walaay doon na ay hectare mhm. eh, bu ñu ñëwee rek mën nañoo dugg. waaw bu ñëwee ma jël ko incha allah. Mhm. allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Cheikh bi nga def. maa ngi sant. lay ziar. tur bi ak foo nuy woowee. ah. tur bi ak foo nuy woowee. man ngi ko wootee ngin waaw. ngin gi neew. ngin gi neew. ah. ngin gi neew. allo. ngin bi neexul tey bismillah ñu lay déglu. Saar Saar. day déglu télé ba. Saar télé bi ngay wàññi. bi ngay wàññi. ñu ñaan képp koo xam ni da ngaa dugg. li njëkk a def. waaw mooy nga wàññi télé bi. dugg wax ak ñun ci téléphone bi. Mhm. ndax boo ñoo wax ak ñun ba pare di déglu sa bopp. Mhm. ñi ñuy déglu sax bu baax wax gi day day daal di. soob neex ci ñoom. Passemane est-ce eh, tuuma. Mhm. ki ñu tuumaal baal na leen. waaye du ko fàtte. te foo tasanteeg moom ci àdduna. bala ngeen a jàmm sante. image tuuma bi nga ko njëkk tuumaal lay njëkk a gis ci yow. soog a jàmm santeeg yow. bu xamee ki ko tuumaal bu ko. xamee waaw. xam nga yenn saa yi nit tuumaal la pare duggaat ci say soppe. waaw doo ko xam doo bàyyi. waaye eh, waaye ji waaye gis nga yàlla. Mhm. Mhm. bu feeñalee tuuma bi rek feeñal ko wax. waaw en mhm. nga naan est-ce que diwoo ko wax. xoolal ñi ñu mës a tuumaal ñëpp. jeexital ba mooy xam nañu kat moo leen tuumaal. dëgg parce que yàlla dafa maanu. ba nga xam ne ginnaaw tuumaal nañ la as góor gu ñu tuumaal nga bu fexe ba nga yëg sa tuuma xam nga nu muy def fexe ba xam kilo la ko waxal parce que day bañ nga bàkkaar sam xel bu la ko bu feeñalul ki ki ko wax bismillah da ngay xel ñaar ay ca daa mel na suñu papa Youssoufa Seck la ñu ngi. bu laaj ñu lay dégg ceeb ñu ngi kii ñu ngi lay dégg. <laughs> waaw. bisimilah. bisimilah waaw ñoo ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay fay bu baax man de du juróomi yoon. walaay dëgg la walaay dëgg la waaye xam naa noonu la ah, ñu ngi nuyu Baye Ousmane. waaw delloo nuyoo baax. nooy ñu ngi nuyu maanaam soxna kooku moom. Mm-hmm. damaa yàgg moom njaga dëgg la mm-hmm. dëgg ku baax a ngoogu. wax na ma ko ba mm-hmm. tey. yal yàlla yëkkati. amiin amiin ak daara ji mu yor. amiin amiin amiin ah sëñ Ousmane. waaw sëñ Seck. waaye sa wax yi dee ko dee ko dee ko def téere waay. ah incha allah waaw dana ko soxla ci ëllëg. waaw dana def nañ ko téere mais dana soxla ji. incha xam naa du ma fa yàgg ndax sama kër yi dafa kii waaye. Mhm. naa dugg ba yonti yàlla Moussa. Uh-huh. xool naa ko li waral suuratu alif laam miim zaalikal kitaab bi mooy bàqara. waaw. Mhm. yéen a ngi may dégg. Ah, waa kay waaw. Ah, xam naa. Ah, dafa amoon benn waaye boo xam ne waa ji mbokk bi dafa am alal. Mm-hmm. mu làqatu rey ko ba pare yor jaas yi di naa di yoon yonent yàlla Moussa su ma xamee ku rey sama mbokk mi. Mm-hmm. naa ko rey. déggali. tiiñal Moussa ba yàgg yàlla yebal Jibril. Mm-hmm. Jibril wax Moussa nag wa na muy mel. mu am benn xale boo xam ne ndeysaan dafa tumuranke ñuy wër ba àgg ca xale ba rek. moo mel ni xale nag wi bu ñu ko feesee der bi ñu sol ko or ak jam ñoom lañu ko jëndee waaye mhm. waaye bu ñu jëlee dara ci nag wi mhm. dóor ko waa ji waa ji dafa jóg ne ko yaa rey mhm. allahu akbar ah Moussa ni ko ginnaaw yaa ko rey rek reyal sa bopp gis nga yonti yàlla Yuusufa moo waral falamaa ra'aynahu akbarnahu wa xatahna aydiyahunnaa uh-huh. wa qulna haasa lillaahi maa haaza basharan in haazaa illaa malikun kariim dëgg la mu mel ni mi ngi nettali histoire yoo xam ne yu yëngaloon Mm-hmm. macha allah adduna doom bay ca suratul baqara yonent yàlla Moussa mm-hmm. ak rayoon mbokk ma ak la ci xewoon ci genre tuuma yu mel mm-hmm. ba yàlla leeralal <laughs> yooyu fi yonent yàlla Moussa ci boppam dafa bëri dafa ma loo xam di sa borom di sa <laughs> la eh, doom ci fi ma tolloon sànq ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni tuuma duggoon na këram ci soxnaam ñu mm. tuumaal soxnaam njaaloo moo tax lu bon yàgg na ci àll yàgg na fii wax ji bon ba tas kër mm-hmm. walaay yàgg na ci àll tas na këru yonent bi ndax li tax mu tas ko mooy saxaaba yi ñu ko naan mais fase ko ñu ko naan ñu ngi ko naan doo ànd ak jigéen joo xam day njaaloo mm-hmm. jigéen ñi ñoom ñëpp benn ñu fase ko Mm-hmm. xoolal diggante Aïcha ak Babacar ak yonti bi amour bi nekkoon ci seen diggante mm-hmm. nga xam ne yonti bi ñi la gën a bëgg ndaw si mm-hmm. ak baayam doom baay ko ba yonente bi di ko xoole tuuma googu njaaloo ak ñu mu toll lu na ci àdduna yàgg na xanaa xamoo ni eh, bismillah allo ñu jël ko salaamaaleykum waaleykum salaam bi na nga def maa ngi sant yàlla mbaa yaa ci jam tur bi ak foo ni maa ngi tudd Serigne Mame Babacar Sarr ngeen ngi neew. imaam Serigne Mame Babacar Sarr ak moom. waaw. Sarr ñu ngi ziar baax Sarr. waaleykum salaam. mooy imaamu gin gi neew imaamu rajo bi ah macha allah macha allah Sarr. mooy doomu El Hadj Mamadou Moustapha Sarr tamit. Sarr Sarr Sarr. moom moo jox wér di salaatul fatiha ñu ngi koy ziar baax. ah ñu ngi koy ziar baax Sarr. ziar maam Ousmane suñu ziar baat boobu ak Seyda ak ñu toog ci plateau bi yëpp. jërëjëf Sarr ñu ngi ziar baax Sarr. li ngeen di wax ci tuuma. waaw. Mm-hmm. xamuloo ne am na <clears throat> am na ay garaat yoo xam ne ci borom asamaaw. Mm-hmm. Mm-hmm. julli mayiwu ko jàng alxuraan mayiwu ko or mayiwu ko. xala mm-hmm. kuli xaal dañ ngay teg tuuma nga mun tuuma ba xam uh, yàlla yàlla jox la garaat booba de. day yéegal moo teg tuuma rek. waaye de. ku ñu ku ne rek war nga góorgóorlu taat ci yàlla te xam yaa ci yoon wa. mag ñi nag dañoo wax ni. mag ñi dañoo wax ni. télé bi bul déglu ci tele bi defal direct rek. Euh, tu euh, gàkku tuuma. gàkku bul déglu télé bi. gàkku tuuma saabu bi yàgg a koy fóot. waaw sëñ Mame Ba bul déglu télé bi. gàkku tuuma. gàkk gàkk tuuma saabu yàgg koy mhm. saabu bu yàgg koy fóot dëgg la mhm. dëgg ku ñuy teg tuuma fekk mi ngi jaamu yàlla yàlla la xolam nekk ci jaamu yàlla mhm. suñu waajur daf ma waxoon ne bu fekkee ne nit ñi ngi lay yaa ngi jaamu yàlla ñu lay teg tuuma yow góoru sa jaamu yàlla Hmm. bari xaana ku dem ku ñu xool mu nekk ca kaw fekk nit ñoo ko yóbbu foofa ndaxte ku la teg tuuma wax loolu ñaaw lu ne rek yàlla na la nam toll yow euh, maîtresse ba mu toll yàlla yëkkat na lu toll noonu ca kawam. allahu hmm. bu la ko ñëpp wax nag bu yàggee rek. dëgg la. Euh, da nga àgg ca waru hmm. kon nag ñuy ñaan seen seen TV bi yàlla yàlla taxaw ñu leen ndokkeel ci koor gi di la ko ndokkeel ñëpp nag. te suuf naay bëgg a dugg nag waaye dugg gi léeg-léeg day jafe lool. ndeysaan ndax lu baax moom ñëpp ko soxla. Mhm. saabi wa saabi xoona saabi xoona uraay kal mu xaraboona bu boobaa nag ñu nekk ca saabi xoona ya rek. wallaay dëgg la. <laughs> saabi xoona laa maxfirati min rabbikum. macha allah kon nag ñu kontaan ci yéen soxna si ñu ngi lay gërëm bu baax. wallaay Sarr. Sarr. waaw <laughs> oh, sëñ Babacar ah? imaam Babacar Sarr. ca fële gin gi néew gin gi néew koy nuyu bu baax macha allah kontaan lool ci dugg bi vraiment moom eh, mës na mhm. na def lu yéeme mhm. mës naa kaa nettali macha allah dafa dem ci benn kaamil ñuy mhm. jàng di jàng ba noppi sedd na genn góor sédd na ko def naa mu juum sax damaa ci suukar sa la xaw ma ci xaalis sédd na ko daal toog ba caa góor gi ne ko amaguma <laughs> xanaa ko am Cheikh Diop la am waaw mën naa <laughs> waaw imaam maam Babacar Sarr séddaat ko da koy joxaat hmm? da koy joxaat séddaat ko de xam nga jàpp na mi ngi soog a am hmm. ba pare joxaat ko wàlla da koy jox <laughs> waaw muy ñett waaw waaw ñett na doy xib ma très bien sédd ko pare de waa ñu ko imaam mën de amaguma maam Baba joxaat ko de ah kon yaa ngi soog a am ba pare joxaat ko wàlla muy ñett kuy xëccoo cër kuy xëccoo cër rek amoo cër amoo cër walaay amoo cër kuy xëccoo cër da koy jox walaay amoo cër joxaat ko parce que dafa am cër dafa am cër dafa am cër mu ñàkk mu ñàkk euh, dafa am ñaar ñaari tuuma yoo xam ne dafa am sant ndax bokkuñu fa ñuy jóge te dayoo dayoo dayoo dayoo mettit bi tamit tolloowul yaa seeda xanaa xamoon ni jàmbur tuumaal da nga naan diw ñu jël ko ma ko aywa jëlal man bu jëlal allo ñëwagul d'accord yaa ngi dégg man jàmbur bu tuumaal da naan kooku daf maa fenal boo bëggee wàññi dëgëre tuuma gi danga naan diw daf ma fenal xamuma xamul lu ko wax gën a waaye mbokk mu la tuumaal da nga naan daf maa sosal te booboo gën a metti te doo ko ko baal dëgg la dëgg la mës naa laa wax ni la réew mi li tax mu garaaw mhm. yaa Seyda man mi la wala défendre maa lay yàq dëgg la faar mhm. wallaay boo fekkee ki lay yàq mhm. boo ñëwee ci santam ngay jaar xam turu ndeyam xam turu baayam dëgg la nga bokk na ci koy yàq koy yàq koy yàq ab deram Mm-hmm. yaa ngi yàqaale askanam. Mm-hmm. dëgg la ko yàq deram yàq nga askanam. koo yàq deram. Mm-hmm. teg ko tuuma bu ko nit ñi tegee bët. yàqaale nga askanam. ndax yow dangay wax dem xëy na ka nga koo wax moom rek nga koo wax pour bëggoon lu ko neex waaye kooku bu paree da koy nettali jiwaat. kooku ñaata xarit la am xaritam yooyu ñaata xarit la am ba mu tës réew mi te moom képp dong la am na ñoo xam ne buñ ko yëgee duñ ko ko mas a wax. am ñoo xam ne bettuma la ñuy wax ay noonam yi sës ci wax ji it dañ jëlaat wax jooju xuloo ko nit ngi xuloo mu gaaral la cib xuloo xuloo ba jeex nga naan diw lan la war a wax lan la war a wax waaw fekk yow xamoo lu mu wax waaye lu mu yëg lu mu yëg la la xasee te yow yëgoo ko jëfoo ko moo tax aji ñii tuuma Badior alo allo allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si na nga def maa ngi fi. xanaa da ba sonn. alo allo. oui. <laughs> mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm waa. macha allah ñu ngi lay déglu foo ñuy woowee ak noo tudd. man naa leen di woowee montagne fi may liggéeyee. waaw mais maa ngi dëkk Malika da nga am loo ci bëgg a sànni. waaw maa ngi tudd ajaa Séni Diop. Adja seeni Diop. waaw. Diop juba ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baa mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm waa. ayca dafa am loo ci bëgg a dolli. waa dañoo woote woon kii ci émission bi. waa ñu ngi lay déglu bu baax Diop. waa maa ngi rafetlu émission bi. jërëjëf Adja Sini. waa Adja maam Sini Pay Diop moo ne sama tàddaande. waaw kay ñu ngi lay nuyu bu baax. waa di rafetlu seen émission Zik Feeling bi. waaw <laughs> hmm, moo ne sama xam nga léegi foofu da ngay def euh, kooku boo nee ko defal kooku boo nee ko defal un sa ko moo nga ci rajo ba. moo nga ci rajo rajo da eh, gis nga tuuma. ku ñëw ci télé bi da ngay def de gis nga tuuma li tax mu garaaw. damaa mos a dend góor gu baax benn 4 avril. El Hadj Bakar Diagne. yàlla yàlla yokk leeram. ci biir bàmmeel te xare ko àjjana. amiin da daan dund àjjana ci àdduna. mooy bëgg lu rafet bëgg lu neex. dund àjjana a ñëpp jaam lu mu am bokk ak doomu aadama mm-hmm. yàlla mayoon ko mu yor oto boo xam ne ña ko yor Cees bu ko yorul moom képp damay bañ a fen mm-hmm. ña ko yor bëriwul 4 mm-hmm. avril jot sëfoor bu ñu naan Moussa moo ko daan dawalal Baye Bakar xaar Moussa sëfoor bi sëfoor bi yéex a yéex ñëw mu jël taxi dem ci bu bàyyi fa oto bu bàyyi fa oto bi bi bi oto bi bi oto bi bi bi 4 avril bi jeexee benn góor gu dend ak moom Moussa Laye ngi arrière pour xaar góor gi wàcc ci tirbine bi dugg ci oto bi benn góor gu dend moom moo ngi dend ak moo ngi wax ak beneen góor naan ko oto Bakar Diagne la de. Mhm. xam nga boo amee alal ñii dañ la tam ñu tuumaal la euh, franc-maçon. franc-maçon mhm. góor jigéen. Mhm. jaakatu yàmba lépp ngay dégg. naan ko ah alalam gi commencé wax. lewut tudd yemuy tudd. billaahi. <laughs> ci warmaal góor <laughs> Baye Bakar dañ ko kon xam nga kee. ni ko laay. bu fekk bu paa bi lay waxal waaw. naan ko mm-hmm. Mm-hmm. ni ma ko xamee. beneen mm-hmm. paa bi dëgër fi naan ko xaritam la. paa bi ndeysaan jël ci alalam. ni la ah, war ngeen maa boole góor googu de. loolu lii moom maa ko fasee kóllëre ak seen xarit boobu parce que dama koo bëgg a xam. daat koy jox dañoo jekk ba si yàgg gis góor gi ubbi oto bi di dugg. daal dugg la ilaha illallah. lii kenn nettaliwu ma damaa fekke ba dugg ci biir oto bi ñu continuer maa góor gi di waxtaan. te pourtant xamuñu ko. ba ni xaritam lañu. jël ay tuuma teg ko te xamuñu ko c'est-à-dire que adduna noonu la ñuy defee gis nga tuumakat bi mhm. bu dee tuuma danaan xam naa ko mhm. yow mi muy waxal bu la wóoree ne xamoo ko day xool benn borom daraja mu suqandiku ci borom daraja jooju ni kookoo ma ko wax <laughs> moo tax <laughs> lu yéeme laa la wax na wallahi euh, mel ni sëy daal ngaa laal wallahi wallahi wallahi wallahi moo tax nit ñu baax ñi mhm. seen der boo ko moytuwul moo tax xanaa xam boo tuumee la tuumaalee nit dara mm-hmm. nañu yónni yàgg rek at at rek at rek waaw bu ñu ba at li nga wax dara ñu xool la mm-hmm. ñu xool la dara soppi dara dara dara kiiwul ci yow mm-hmm. xam ne la nga doon wax dëgg la mais bu nekkee du dëgg fu ñu mu feeñ ci yow ñu jaar mu feeñ ci yow alaaj maam Baba Sarr bu baax mi woote sànq di ko nuyu ak xalifa alaaj Kabir ak sëriñ Mor Kañ di leen nuyu baax a baax mu góor alaaj Moustapha Sarr genn góor taalim dafa daw ñëw ci moom ne ko damaa fekkee sànq fu ñu lay waxee lu bon waaw di la jëw lu ne ñu ko ñu la koy wax mhm. mu jël góor jox ko ne ko yóbbul nga jox leen mag ñi noonu lañ doon def mu àgg jox leen macha allah bi muy ñëw mi ngi mer lool foog na bu ñëwee da leen def lu bon foog na da cay xuloo foog na da cay jug jug ko baati mun a jox leen gis nga place bañ toogoon di ko wax di ko di ko wax lu baaxul place ba moo yàqu place ba moo yàqu waaw place ba léegi boo boo fa demee njagam yi du fa dugg mhm. ndax lan fu ñu jaayee sàngara la mhm. waaw baax na ñu mu def baax waaw dañ fa yàq deru nit ku baax waaw wàllu yu nga fay nga fa moo tax place bi kon ña ko wax anañu kon wax anañu kon ña ko doon mhm. nga toog dafa mujjee yàq ko te Sénégal fit giñ am ku leen raw rek xoolal xaar gi ñu la wax sànq xaar gi sànq comme ni sëñ Fall wax gars xoolal ñoom ñoo ne dafa lépp jamono ñu toll nii dem a ngay reer àgg na jamono ñu toll ni nangam ñoom ñoo xoolal ñoo lay waxal lépp diw xoolal doom ji da ngay ñëw sam ngénte sax ñu tudd liir bi sax naan liir ba daa ñuul de wala liir bu ñuulul dafay xees mhm. xale bi tàmbalee màgg wala liir ba xoolal dafa xees te yun saa ñaar ñu ñuul dañuy am doom doom ja dem xeesi ji amul maam bu xees dañuy lijjanti ba lijjanti ñaar billahi maam bu xees une fois lii day bañ a niru njage mii niru rakk njage boo xam ñoo bokk ndey ak baay parce que yéen yéen bokk ñeen ah rakk ji dal niru moom la niru moom la niru hmm. en tout cas bu mu niru surga bi ci kër gi sax bu mu ko niru te yenn sa yi sax dañ naan ma nit yenn saa yi mu tiital laag mu niru laag wala nangam mais nit ñi ñoo teeyul Uh-huh. suñu borom moom maandu na maandu wax moom xam na li ci njaaloo wax nañ ko àtte ki mais nit ñi ñoom dañu àtte lépp lépp lépp dal te gis nañ ko de ba ngay génn ca néeg ba gis nañ ko ba ngay wax téléphone gis nañ ko nangam ba tuumaal la lu nekk uh-huh. ñu bàyyi tuuma yi dañuy teey ci ci ci ci ci ci ñi uh-huh. moo tax jamono ñu toll nii daal euh, njaga hmm. ku yebu daal tey bu baax a baax a baax a baax mhm. ci wàllum lépp wàllum téléphone yi tey baax ci wàllum nit ñi ndax nit da lay jege lool mhm. foog ne moo la gën a bëgg te fekk ne dafa am lu muy wut si dong agent mhm. secret te ki la jege bu la waxee waxalee euh, dara dañ koy gëm sa soxna nga takk mu waxal la dara tey dañ koy gëm ñoo ngi may nekk kër waxal la dara dañ koy gëm xam nga ne ki tas ak gelam keneen ba kaa jël mu naan ko man damaa sidda gis naa ko tasante gelam gi génn ba neex lool mais muur ci dëkk bi nag moom ko góor gi dafa sidda hmm. mi ngi bañ xale bu jigéen bi te ëmbaloon na ko dëgg la mi ngi bañ keneen a jëriñoo xale bu jigéen bi walaay la walaay dëgg la am na fi mais loolu loolu tam loolu tam doy na war am na fi <laughs> ñoo ngi may ñoo ngi may nettali koo xam ni hmm. bu bëggee neexal ki muy àndal hmm. bu yegsee damay woo Pa Ousmane takku sama écouteur wax ci Pa Ousmane di xool nag kan mooy def réaction pour kamu pour kan mooy wax kële dégg ko. la ilaha mm-hmm. mooy li nga wax ne nañ tey ci téléphone. Euh, damay def la ndawee. nit a ngi takk écouteur. Mm-hmm. Mm-hmm. di waxtaan ak yow. njëkk a xas Mouhamed mbay mi fi nekkul. dëgg la waaw. nga tàmbalee xas Mouhamed Mbaye. dëgg la fekk Mouhamed mbay ngay déglu waxtaan wax. dëgg la fekk da koo wax da koo bëgg wax ni ko. da ko gaa yi waaw. ni ko gaa yi bëgguñu la. bu mam bu xamee ne nekkee nit nag da xam ne njage ñu ko njëkk a xas waaw moo ko xas nu ndax janax bu njëkk a génn waaw waaye janax bu ci topp jeneen bu tudd mais defe yaa yi nga xam dañuy dem ci kilifa ne ko non non non faw faw ma xas la mm-hmm. wax la lu bon comme ça nga mën a xam c'est-à-dire wala njaga moom ba fi sama téléphone daal di génn ah ñëwaat dama fay faat sama téléphone ndax diggante bi may dem sax mhm. banaa ko moo du enregistré daal ñu euh, euh, duggee rek man mën ko jël <laughs> waaw téléphone moom koo xam koy bañ wax nit ñi di am ñu dafa am ñoo xam dañu doy waaw dëgg yàlla mais jàngale la mhm. pour nit ñi bàyyi xel am na koo xam téléphone am di jël jox ko benn xale doomu du doomu jëm sax mhm. mbokk wu jëm ni ko dugalal ma ko foofu wala loolu pour que lu mu wax rek mu maarisi la jigéen ñi nañ ci bàyyi xel seen néegi téléphone yi nga xam ni ñu ngi ko fa teg am na xam dañ koy yónnee pour enregistrer rek la dañ ci bàyyi xel pour guddi gi wala pour enregistrer nit ki li muy wax rek euh, Mouhamed euh, euh, <laughs> hmm. yaa Seyda ngi sopp doomu aadama mu sopp la ba jox la bakkanam waaw yàkkamtiwul lu gis la teral la hmm. fu ñu tuddee yaa Seyda mu wax fa lu baax hmm. nga jekk ba si àgg ni dañ maa dëddaleeg moom. Hmm. wallahi kenn dëddalewu leen laaj bi na leen. laaj bi na leen hmm. dëddale faa. moo gën a gaaw ci dëddale. bëri na soppe yoo xam ne tey noonu lañu. Hmm. boo laajee Pa Ousmane ni ko loo jotee Fall Ndiaga mën la xawma ko imaam Dame Ndiaye imaam Dame Ndiaye bu deux heures ko dégg benn jour mu wax lu saf xorom imaam Dame mu ne su gëjee gis ni tam bu dajee moom danaan ko waxuma ko de loo dégg waxuma ko ma jël ko <laughs> jox ma mu ngoog nee danaan ko waxuma ko de. wax naa ko dégg wax ko sama benn soppe fan yee. waaw dama ko ko bu ñu gën di déggante. aleykum ah, salaam gën di déggante noon ñi dugg ci dig ci diggante bi. aleykum salaam. am nañu ayta soxor nag. tur bi. ngi ci ligne bi yaa li ma maa maa ngi lay nuyu bu baax. Mm-hmm. mu mel ni doom bàyyi lu am solo nga wax. dama ni ko. Mm-hmm. bu ñu gëj di déggante. ndax ay soppe du ñu gëj a déggante. ndax bu ñu gëjee déggante ay noon dugg ci diggante bi. nga ni ah looloo tax njagg gëj maa woo. man it ma naan looloo tax diw gëj ma woo. Mm-hmm. su boobaa nag kenn ku nekk nag.